ndongo yu nag ci lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye ñoom nag ñu ngi ci tiitange. waa tiital nañu trop parce que la fois passée am na benn classe boo xam ne dañ doon def cours ba si yàgg mu am benn porte benn bunt bu wadd te loolu noonu tamit nekkoon na loo xam ne élèves dañoo ragal ba ñëpp di daw plafond bi dañuy jékki-jékki rek gis ay toiture yu wadd si suuf am na ñaari classe ñu tëj boo xam ne si batiment bi lañ bokk. yooyu la menace tax na ba seen heure de cours yi. mu am lu ci sooxee perte nañ ay heures de yu bëree bëri bari te loolu moom c'est pas normal ndax euh, gis nga en plus de saa tamit professeurs yi chaque chaque deux jours di semaine yi daan daanuñu woon def cours daal maanaam. dafa jot ngir ñu ut pexe ci mbir mi ngir rek ñu nekk ci kaaraange. ndax euh, dafa nekk loo xam lu am solo la waaw euh, am na solo ndax danañu may ñun ñu mën a nekk foo xam ni fu baax la fu fu wóor la foo xam ni mën nañ fa jàng ak jàngale ànd ak suñu xel. ki nga xamante ne moo nekk proviseur bi mu ngi dalal xel yi. Euh, charpente bi dafa dëgër euh, charpente boobu tey amul benn problème ba léegi mais comme li ko euh, li ko muur moom moo xaw a moom moo xaw a sooxe dañu jàpp ni li gën a wóor mooy comme élèves yi ñu élèves yi ñun moom rek lañu am dañ ko war a gaaw defaraat. ba tey fi nii fi ñuy waxee xëy na kenn mënul wax ni dattel dina tàmbali mais mën nañ jàpp ni soreetul soreetul te yàlla mën na si def sutura ba liñ ci bëgg dinañ ko ci am. gannaaw bâtiment yu màgget ñu fi nemmeeku leneen li nga xamante ne moom la ñu seetlu mooy lim bu jéggi dayoo moo nekk ci biir classe yi. classe zogon bi di ko firndeel ndax lu ëpp téeméer élèves ñoo fi jàng.